ñoo o au peuple Sénégal yépp di o leader politique yépp di o njitu réew mi yépp ba kenn ku ci nek na nga duggal sa loxo ci jamm ji nga xamné mom lañu bëgg ci biir réew mi lolu nak pour ñu am ko il faut ñu tok waxtaan am réew dañ koy waxtaané ak lu mëna xew am réew dañ koy waxtaané buñu talon réew mi ba tabax yi daanu lepp lakit ci biir toog waxtaan jubo ci la ñuy mujj kon bu président de la république ootee waxtaan ñu ñëw fekki ko war nañu waxtaane réew mi ak ëllëgu réew mi jalok national buñ ko ootee ci réew mi nga xool président nga xool les délégués de quartier kenn ku ci nekk la nga ëmb ci ay nit ëpp na ay junni junniy personne ay junniy junni buntu kër yoo xam ne moom nga ilif ñu dajaloo ñoom ci benn kuréel suñu ootee dialogue pour waxtaane luy war a yóbbu réew mi ci kanam